Bonsoir et bienvenue chers amis internautes de DKR 221 un plaisir bi di waat ak yéen euh, fii ci seen euh, site ngir waxtaanewaat euh, réew mi ak lu soxal réew mi ñoo ci nag ak ki nga xam ne mooy Saa Wolof ngeen tàmm ko mu bokk ci kër gi nekk ku ñu leen di présenté moom la ñu fas yéene seqal jotaay bi ci poñ wuute ñu fas yéene waxtaanee ko Euh, laataa waxtaan bi rek dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyuwantewaat ak yéen saa wala asalaamaaleykum. waaleykum salaam nuyu naa leen di nuyu nuyu seetaan di ñaan yàlla yaatal suñuy dënn leeral suñu laam ba li si wax ñu mën cee jëlee njëriñ. saa saa semaine bi da nga xaw a kii d'habitude début semaine nga fi daan ñëw tey nga jékki ba jeudi. waaw xawoon na di tuuti rek. loolu day faral wala léegi mbir mi xaw a kii. deewalaay. <laughs> est ce que xawoon a jagar yi tuuti rek. Ah. Mm-hmm. ah mais léegi tawféex bu baax. waaw alhamdulilah yal na sunu borom def tawféex alors euh, mu nekk nag koo xamante ni dootu nañ ko présenté ak anamam istilam euh, ni muy waxtaanee ci euh, ay poñ yu wuute lépp loo xam ne mbir la rek lu am ci réew mi soxal teyu réew mi ak ëllëgu réew mi mu am ci xalaatam di ko joxe donc noonu la ñuy doreeg moom waxtaan bi ak li nga xam ne mënees naa wax ne actualité la nii nii yéen a ngi dégg le maire de Dakar Barthélémy Dias. kàddu yi nga xam ne yëgati na ko gannaaw euh, la am ca mairie bu Dakar bi ñuy yeesalaat euh, bureau municipal bi euh, xëccante beeg ñoddante beeg ay alliés ak la fa am yëpp dinañu ci ñëwaat mais kàddu yi nga xam ne yëgati na ko ci conférence de de yow ban jàngat nga ci am boo gisee Barthélémy Dias tey ak taxawaay bi mu am kàddu yi nga xam ne moom la yëgati. bon bu ma la bañee nëbb mooy ni ma ko gisee ki ma jàkk dama jàpp ne warkat laa jàpp daal koo xam ne war na daal. kàddu gi diisul ah, yaa ma laaj sama xalaat de te gis-gis boobu laa ci am li ma am it man li ma jàpp it naa bañ a am waaye loolu la yàlla dogal ci man loolu laa jàpp dama jàpp ne kuy wor la di rëccantu. lan moo tax nga xool Barthélémy Dias mu toog di wax nga jàpp ne ki nga jàkkaarloo nii workat la. bon ci ay waxam boo boo seetloo xam nga man bu fekkee ci wàllu parité man dama gëm ne bi ñu defee lii dama bokkoon ci ñi respecté wuñu pari parité pourquoi pas après ci lañ ma wax ne man comme maire bi euh, suffrage direct lañ ko fal mhm. moom bokkul ci wàññi bi léegi nag ñi ñu fal indirect ci la mbir mi di tàmbalee moo xam ñu tàmbalee ku ci ku jigéen jëm suuf wala ñu tàmbalee ci ku góor jëm suuf mu ngi mel ni ñu ne présidence de la république tey suñ ne woon suñu parité buñ ko doon doxal te man sax foofu dama xamul lu tey ñu dem ba suñu logique ñun ñëpp yegg ba foofu maanaam tey ñu ne euh, président ma nga ci kaw. Mhm. comme maire Dakar léegi nag ñi ciy topp nag la ñuy def parité wala yu demee noonu mais ànd ak loolu man dama nit ku yàgg xeex parité euh, jàpp na warut am xam nga lu tax euh, élection yi passé législative yi bi ñu koy amal dama dem Touba fi ma dëkkee ma doon def benn mën naa ne meeting ci sama façon bi ma koy def dama jël ay pat laaj sama rakk bu jigéen bu amoon bac ne ko xoolal ma ñu am bac ci dëkk bi mu ne ma nangam lañ waaye lim xool yi ay jigéen kese la amul benn góor bu ci nekk ma ne loolu nu mën a nekkee daanaka école bi góor ñi ëpp jigéen seen seen kii bi ñu génne daaro dem Mbàkke di jàng maanaam suñu école bi foofu ñaata classe la six classes noonu la ñuy def ba ni ñuy yeggee di am niveau di def niveau pour am bag di dem Mbàkke nga yëpp ma ne ko noonu la daaru di mën a am école boo xam ne ni ñuy dem ñu jigéen ñi rek am mu ne ah, loolu la yàlla dogal léegi ma jàngee ci lenn man bu doon parité lañ appliqué di ko teg ci ku am xam-xam ci ay lijaasa wala nangam maanaam jigéen ñi dañ leen di linge foofu parce que ñoom ñoo man ñoom ñoo xam ñoo am tolluwaay bi waaye kon boo fa dugalee parité mooy da nga xeex da nga leen xeex seen cër comme li am Rwanda Rwanda tey boo ñëwoon ne parité mhm. parité moo fa am seen ensemble maanaam da nga linge jigéen ñi <laughs> parce que fi ñu toll euh, parlement rwandaise jigéen ñi ñoo fa ëpp góor pour man Abdoulaye Wade li mu koy naw naw ci parité laa am lu ma d'accord man dama bëgg rek mu doon mérite xam nga Mimi Touré xaarul kenn la doon wax bu ma déggee euh, ci yow sax bañ parité euh, éliminer wu jigéen ñi mais da nga bëgg mu nekk mérite ba exactement mais pas ñu bañ. ñu naan dañoo jagleel nii rek wala nangam yow yaa fi sës non dafa war a doon ki nga xam ne moo man ki nga xam ne moo xam ki nga xam ne moom lañ. parce que bu ñu wax parité moom mën nañu nekk ci situation boobu yaa fi sës. voilà yaa fi sës loolu nag baaxul ci démocratie pour man euh, parité c'est anti démocrate avec euh, tout les respect ak bu ma am ci wadd que muy xeexal jigéen wala kenn gënumaa doon féministe man mais doon gi ma doon féministe sax moo tax xaj na man ma bañ parité parce que dama gëm ne jigéen ñi am nañu capacité. jiite dëkk bi doxal ko te bu des woon ci man sax des ci man des ci man élection yi di ñëw ñu fal Mimi Touré. ah wala ñu fal euh, Anta Babacar Ngom wala ñu fal keneen donte ne duñ samay. candidat maanaam. Ah, man non ah. Mimi Touré laay. laay laay non non non xam nga maanaam man Mimi laay moom laay parrainé xam Mimi Touré laay parrainé. pourtant parrainage bi bu soobee yàlla moom laay parrainé. man soit ma pare ne Mimi wala ma pare Anta pare na Anta Babacar. te du sa candidat. waaw parce que dama jàpp ne. alors lan moo tax ba nga jàpp ne yow war nga leen a pare ne yi maanaam pousse leen bokk ñeen di teg loxo ngir ñu mën a bokk ci élection yi parce que pare naa soo ko matalu doo bokk. kon sooy pare ne nit am nga yéene mu a bokk ci mhm. élection moo tax ba nga jàpp ne yow leen war dimbale ngir ñu mën a bokk ci élection yi te buñ ci yeggee doo leen voté. non xam nga man bi may. Euh, parce que ni nga waxee nii nga nekkum sa candidat. amul problème mu parrainage loolu laa xam léegi nag du ma dem fekk amul problème mu parrainage maanaam jal bi fees ba pare ma di ci jalaat bu ma ko def damay dem fekk ñi nga xam ne ci opposition bi lañ nekk ñeneen ñi ma am yaakaar même bu fekkoon ne du Mimi Touré wala nangam sax keneen laay pare ne dul candidat bi ma bi ma jàpp parce que man dama bëgg élection yi gën a bëri man Ousmane Sonko mooy sama candidat Ousmane mhm. dina ñëw dina ñëw ci Ousmane Sonko candidature mhm. euh, mais fi ñu nekkoon fi li ñu wéy rek Barthélémy Dias euh, kaddu mi nga dégg ba tax nga ne euh, nga ne ab woorkat nga ko jàppee moom ca ak fa anam boobu mu jàppee waat ñi mu jàkkaarloo ay workat lu ñu duppee ay traître. non ci ci ne ñëw ay waxam bari ci lool moom laay wax ay ancien alliés ay xam nga moom mi ngi leen di wax ne dañoo dem ba ensemble Cheikh Khalifa wala nangam non muy ñoom Sonko ak ñoom ñëpp li ñu waxoon mooy ñëpp bokk ñëpp bokk nag fi ñu koy jaar. xalifa nag moom dafa ñëw ne naa bokk rek fu ngeen ko jaar baax na fu ngeen ko jaar baax na nag moo dul yëfi gor moo dul fi mbir ma foofu la commencé. voilà maanaam naa bokk rek mooy fu ñu jaar ba naa bokk rek même ñu may toroxal ma bokk boo may saaga ma bokk boo may teral ma bokk boo may nangam ma bokk boo may duma ma bokk boo may tii ma bokk loolu nag duy wax xam nga bi nga xam ne moom la yeewi waxoon ñoom Ousmane Sonko mooy dem ci ensemble parce que problème bi mooy li tax li ci génne xalifa mooy ci génne Karim te ki leen ci génne tegu ko fenn 2018 la ñëw dem ca nday kii bi nu mu tudd du ci nday aata ji sax du constitution dem ci code électoral bi waxloo ko loo xam ne nii Sénégal su ko koo waxloo muy dem ne ko léegi tout sénégalais électeur électeur jooju bu ñu ko ci dindi woon rek ñëpp bokk kon xalifa bokk d'accord mais dafa am lu muy bokkee ak fu muy jaar kon li waa Pastef def am nañ ci droit loolu mooy dëgg tey li ngay def tey même bu dee xalifa dafa bokk yaa ngi créé benn jurisprudence boo xam ne baaxul ci Sénégal mooy yaa ngi jël mbum njiitu réewum Sénégal ak euh, hyper présidentialisme bi ñu nekkee woon nga bëgg a jëlaate jox ko ko yoo xam ne ëllëg ak ku ko mën a doon que muy Macky Sall wala muy keneen ku ñu euh, tëjati wala nangam ci président bi lay des moom gracier la gracier dañ koo yemale woon say pouvoir dafa yemoon ci yow mën ngaa bàyyi nit ki dootul tëdd mais du teye mu ñu yoreel lim ñu yoreel wala nangam nga léegi man ku ma gracier léegi kooku mooy sañ a participer wala nangam kon yaa ngi koy dolli loo xam ne baaxul kon L28 waruñ ko woon a laal 29 30 lañ waroon a laal ak 57 léegi lu tee ñu laaj ñooñu loolu la ñu wax ñoom wuñ la maanaam xalifa du bokk parce que bu desoon ci ñoom képp ak leen Sénégal mayoon tey ñu dem ensemble dinañ réhabilité waat xalifa ci fi ko war a jaaree. léegi nag ñoom fiñ ko jaar. donc ak ki ki qui a raison au, fin de la, à fin de la journée parce que bu ñu déggee ci côté surtout passif li ñuy wax mooy euh, ñi nga xam ne bëggoon nañ ko indi ay coppande ci yenn articles yi dafay may ñu delloo ci si langue yi kii di eh, Khalifa Sall ak Karim Wade moment boo xam ne loole taxut kii di Ousmane Sonko ak dossier judiciaire yi nekk ci ndodam Euh, mu ubbi ay sens dëgg-dëgg ngir ëllëg mu mën a bokk euh, ci jongante bi ñoom ca seen wet euh, li ñu jàpp mooy ñi nga xam ne bañ nañu voté modification article yi lañ bañ mooy kii xalifa Khalifa Sall. non waxul dëgg waxul dëgg xam nga nit ki da koy wax ni mu demee Barthélemy li mu wax day fenn waxul dëgg loolu mooy dëgg. tey ñële waxuñ ko fenn mësuñoo taxaw ne xalifa du bokk ni ko Macky Sall bëgg a jaarale bëgg koo bokk bëlefe ko loolu ci lañ d'accord na leen waxal lim leen di waxal xam nga kilifa li baax mooy nawet na nga jiite waat ñu parce que man mhm. bokk ci ñi nga xam ne daf leen jiite mhm. dama bokk ci ñi dem non seulement dañ ko voteel mais dañu fexe sax ñeneen voté ñoo xam ne nii amaana sama jëm mu tax nañ ñu voteel ko mhm. ba may sacrifier sama bopp di toog ci pré Martin Sandaga yaakaar naa loolu mooy sama première vidéo bu apparaître Mhm. boobu ci laa doon waxee ci wàllu euh, ni nga xamee ne ci wàllu ànd mu ji koy ak yu demee noonu loolu am na benn ñaar wala ñett wala fukki xob yoo xam ne lu mu néew néew andil na ko kon man dama placé pour taxaw wax bi ñuy dem di euh, élection waa Kër Soam dañ ma seet pour def ma conseil municipal dama bañ. parce que local local yeeg dama bañ. ndax damaa jàppale lu naqari makki neex ma te li gën a naqari Macky ci eh, élection yooyu mooy Barthélemy Diaz mi mu génne doon ko bu naxataal ñaar jaas ñëw nekk maire de Dakar est-ce que xam nga ci commune mooy mooy commune Plateau voteelu ma Yewwi mooy bu xam nga ñoom Pape Diouf moo fa doon seen bër voteelu ma ko candidat wu PDS laa votel mais bi ñu yeggee ci ville Barth laa votel xam naa li tax ma votel ko ba pare yemuma ci dama leen a saisel xëy fajar teel dem 6 heures du matin ce que xam nga matérielu bureau bi sax bi nu mu tuddati président wu pii bi suñu kii bi nu mu tuddati bureau bi yéexee ñëw man maa jóg dem ñi may waxal ñu ngi may dégg dem jàppoo ko ak ay quelques personne ya fa njëkkoon ak yooyu ñëw tegal leen pour ñu teel a kii ñun ñoo mujj a tàmbali sax mais ñoo njëkk a pare parce que bi ñuy taxaw daman woo ki nga xam ne mooy fa teewal euh, Benno Bokk Yaakaar. ka teewal Wallu ka teewal. Sénégal deux mille trente xaw bu maam bay ñaar ak ñooñu ñëpp nga xam ne ci problème ma leen léegi. Mhm. lenn moo am si ñun lay des mbir mi jaar yoon comme ñun ñoo nekk ay adver ay adversaire fii nañ fexe ba affaire bi jaar yoon buñ mhm. ñëwee bu ko defee affaire bi du yàgg nii ak nii lañ ko defee nañ ci juboo suñ ci juboo président bi ñu ci topp. Mhm. ñu wax ci ba juboo ñu taxaw ñoo mujjee commencé. mais ñun ñoo jëkk a pare loolu noonu man am naa rôle boo xam ne joué naa ko kon Barthélemy man bu taxawee sama kanam di wax loo xam ne wóor na ma ne day fen mën naa ko non si xam nga dëgg dañ koy wax bu waxee ne ma waa yeewi ñoo taxaw ne euh, ñooñu dañoo bañ xalifa bañ a bokk moo tax ñu opposé wu ci mais loolu du dëgg na ne modification article da koy mayaat déedéet da déedéet déedéet mais dafa am ñaar xam nga mbir yi dafa am ñetti yoon ñu ne yoon wi boo fi jaaree xalifa dana mucc Karim dana mucc Ousmane Sonko dana mucc yoon wi nag boo fi jaaree xalifaak euh, Barthélemy xalifaak euh, euh, Karim Wade ñooy mucc waaye Ousmane sonk du mucc léegi waa Pastef bu ñu bañee ne duñ jaar ci yoon woowu wii la ñuy jaar da nga cee mën a dégg ne dañoo bañ xalifa kii déedéet ñoom buñ ne yoon wi ñuy jaar moom mooy tax ñëpp bokk kon koy yoon wi ñuy jaar mooy dëgg léegi nag nga wax lee ne lee lañ ci jublu te fekk jubluwuñ ci loolu mooy da ngay loolu mooy wax ji xam nga te nit warul te taxaw rawatina kii xam nga Barth bu ma koy wax mageewu ma dara loo xam ne nangam ak nangam ma koy wax kilifa mooy daf ma jiite en tant que premier ministre euh, premier magistrat de la ville bi ma nekk loolu moo tax ma koy wax xam nga boo waree warar rek mais taxawaat di ñu fontoo nag di ñu won naan yaa baax yaa nangam maam Barth mënut a wax ci àdduna. moom nee na ñi mu jàmmalul ci ay lañ nekk. ak moom mooy manipuler. moom ñee lan la ñuy manipuler ak ban intérêt lañ am ci di manipuler. mais en tout cas ñaari wax yi boo koy dégg. non mais bu ci waxee nga ne kële moo. déedéet déedéet déedéet déedéet waaw man boo ma dégloo nag di nga xam ne Bart moo nekk di manipuler nañ départ. xalifa mi kilifa Bart. Uh-huh. ndax Bart la bëggoon mu dem nekk maire dakaar loolu la ñuy dégg mooy xalifa moom bu desoon ci moom amaana soxna dina moo koy toj léegi kan moo imposé pour Bart nekk ko Ousmane ko xam nga d'accord nañ ci. Ousmane Sonko moo taxaw ci seen meeting bi Bart laa gis parce que boobu la Khalifa nekk di layam layam yi mu ne Bart laa gis ko ko jox maire Dakar du ko jaay Macky Sall parce que man xam nga Bart nag mën naa nax ku nekk gaa ñi ñee ngi naan Ousmane Sonko moo naayif wala nangam a nag waaye man dama bokk ci nga xam ne man Bart daf man daf ma daf ma nax ci benn instant loolu mu wax yegg na ci sax ne mi ngi nii nag koo ko jaay mu sax yi donc waaye teewul nangam ba jàppee ko benn kii ñëw imposé ko. pour man sax foofu bar euh, euh, kii Ousmane Sonko moo tooñ xalifa parce que Ousmane Sonko leader la comme xalifa ci biir Yewwi moom bu amee ñu waroon a wax ci ñoom mooy ñoom Abbas Fall ak ñooñu suñu yeggee ci waa taxaw mu bàyyee ko ak Khalifa mu yor cëggalu guyam ku mu indi mu xam ne noonu la parce que leader la am na fu Bart doon déconné ci seen législative yi booba te Ahmed Aïdara ñëwoon nekkoon ci conférence des leaders mais lan la ko euh, Sonko wax Bart doo leader. mu daal di yam xam boppam kon suñ amee koo xam ne tey diggam ak Ousmane sonk su amee ku yoreel moromam weccet Barthélemy la est-ce que Ousmane Sonko moo doon wax Barthélemy sama doomu ndey wala Barthélemy moo doon wax Ousmane Sonko sama doomu ndey kan nga doon wax diw sama doomu ndey la. Hmm? Ah, ñoom ñoom moom doomu ndey gi daanaka danaan def di dikk. wa waaw moom moo daan wax sama doomu ndey Barthélemy yow ci sa kàddu masuñu dégg Ousmane Sonko mu wax ne diw sama doomu ndey la mhm. yow yaa dem ba wax ko foofu yow yaa xëy ne. ba ma Macky Sall di woo woo naa ko yëgal leen ko mais yow Macky Sall mën na lay woo ngay dem di wuy ji woo kii ne ko maa ngi dem lan nga bëgg mu wax la bul dem tàgguwoo ko di neewoo ko ndax ma dem dang ne ko maa ngi dem xam nga ndax ma dem mooy tàggu pour man foofu xalifa ak Sonko ñoo fayam Barth da leen a war xalifa nag dafa yegg foo xam ne daa dem ba dooleem jeex contrôlé tout dara su dof dof loo sax nii moom xalifa Barthélemy day boof ci parti euh, taxawu dakaar boole ji ko parti ba bële nekk seen candidat ëllëg xaw ma ci bii xaw ma ci bee mais loolu moom fi mu toll nii seema boobu moom mooy gën a teguwaat te Khalifa dana dem ba yëkkati. kàddu Barthélemy dafa nekk di préparer candidature en 2029. Ah, bien sûr loolu lay déggoo ko bi mu naan Ousmane Sonko bi may wax Ousmane Sonko moom xale la kii nangam nangam affaire yooyu maanaam boo nekkee ci ay mag wi ak manipulation yow leneen lu jóg loolu ngay giñ nit ñi. Bart moom mooy giiñ naan nañ bàyyi naaw féq bi teew baatu naaw féq ba ñu koy wax ci yow lañ koy fekkat Ousmane Sonko lan nga ko mën a reprocher ci àndam ak waa taxawu Dakar lan dara lii ñu doon wax tey biñ ko waxee moom daf ci opposé ne carrément moom la ñu fal euh, suffrage direct suffrage indirect bi ci Abbas Fall la commencé ka ca topp nangam ak nangam def bras de fer ak euh, l' administration te bi mu demee man jàpp naa ne xaj na moo leen yey xanaa bi mu demee ba ba nekk gloria ci Macky Sall ci la mujj. la mu ah, bañoon non bien sûr ñoom ñooy gloria bi ci lañ daal dem indiwaat loolu mais lu ci mën a am rek. Mm-hmm. xam nga damay jàpp ne nit booy séq ak nit ak booy séq ak dof ak yépp ci yem defal li war a def man Ousmane Sonko dafa am ñaar yoo xam ne benn ci bi muy dem ci législative yi dama ko wax Clédor seen mooy bi may wax ne moom dafa amoon yéene ñoom Dame Mbodj dugg parce que Clédor ak euh, Dame ñoo nekkoon coalition la peuple mais après ñoom Khalifa ñoo opposé wu ma ne ko Ousmane de fi mu mooy fi mu nangoo jiitee liste nationale bi su ma doon moom ñi ëpp ci société civile bi ay gor lañ ay jàmbaar lañ su ma wax société civile bi nag mooy ay comme ñu mel ni ay Clédor ay Maïmouna Bousso ay Saawolof ay Dame Mbodj ay ñoo ñooñu mënuñoo topp ci yambar kuñ mën a topp mooy jàmbaar looloo tax ñu topp ci ku mel ni Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko doon na gagné mieux daal di génn ci liste nationale bi dem liste bu euh, département de Ziguinchor comme fa nga xam ne moom la euh, kii jiite Guy Marie moom mu jiite fa au moins Guy Marie ñëw jiite lii liste nationale bi man boobu CMA laa gisoon ma ne ko te bu boobaa ci liste nationale bi dana mën a jiital Guy Marie teg ci Maïmouna Bousso teg ci mën na ñëw uuf liste nationale. bien sûr jiit nekk ci kanam ay leader ah leader yi lan. bii bari leader de la coalition. non non déedéet leader coalition moo dul dugg ci leen liste nationale bi ba mu leen di jiite. ok ok fa ma doon waxee yi xam nga ay leader. maanaam leader yëpp kenn ñu dindi ñëpp ci liste nationale. bu Khalifa daan doole Dakar. na dem battre Dakar set mais set set set yi fi nekk du yow ñoo ko mujj jël Khalifa dem foofu. wala wala xam nga xalifa moom sax inéligible looloon amuloon inéligible la woon mais comme ñoom Barthélemy Dias ak waa kër xalifa yëpp dem ci liste set dakaar yi set yi ñoom ñu jël kaat yi Pastef jël deux keneen daal di jël fee ñoom ñu jiite ko léegi Pastef moom dem ci Ziguinchor liste nationale bi Barthélemy Dias ñëw fi euh, liste national bi Guy Marius Sagna ñëw fi danga nga mën a am may mun a buso da nga mën a dugg même ci ànd saamu jikko yi biir ànd mujj ko yi da nga leen laaj lu mat cinq ñaari jigéen ak ñetti góor wala ñetti jigéen ak ñaari góor dolli ci bu boobaa sax débat wu ànd sàmm jikko yi mooy ci wàllu ngóor jigéen dañ koy gën a mën a porter sénégalais yi man bi may bi may campagne sa euh, Touba yëpp di campagne l'intercoalition daanaka baat boobu laa doon wax parce que bi ma yeggee nag ay ma tàmbali dégg euh, ki yoroon microcentral bi fu ñu toog Abdou Mbacke Ndaw a ngi noonu Bara Doole ngi noonu sëñ Cheikh Coro ngi noonu affaire yi bari ba mu yàgg man ne ñun lii duñu gañal ñu yàlla duñu may xéwal goo xam ne ñun ñi ko may sax daf ñoo bett muy l'intercoalition ñaari coalition yoo xam ne dañu bokk beneen bi mooy problème mu ànd sàmm jikko yi ak ni ci waa bennoo defoon nekk ak yeneen ak yeneen suñ mënta campagne loolu mooy ñun xamuñu li xew moo waxee loolu mhm. parce que dañ doon def dañ doon briefé gaa yi ne noonu la après bàyyi ma ma dem jiite yor micro ab diir su ma demee yan saa am ku ma secondé mais mujj na si suñu campagne yëpp foofu lañ ko accès te nag wax dëgg yàlla am Touba ñun ñëpp xam nañ ne maanaam ngañaay la daal foofu ci département Mbacké dafa taxaw te même bi ma ñëwaatee fii Dakar di camp di hmm. campagne Barthélemy Dias ñaar la doon campagne ànd sàmm jikko yi bu ñu yeggee mooy projet bi ñuy njëkk a wax ak licence de pêche yi te bi mu toogeeg léegi dangaa déggati mu mu mu mu wax ko kon man li may wax euh, euh, ñu ñu del bañ a génnaat fii du détaati mais Euh, une question question laata ñuy évo évoluer euh, ànd ba tas na diggante taxaw Sénégal ak coalition Yewwi Askan bi ñu bëri waxoon nañ ne sax euh, coalition ba tas na mais tout cas li ñu acte rek ci seen communiqué bi ñu mujj génne muy la conférence des leaders bu coalition boobee muy kii di taxaw Sénégal bokkatul ca coalition ba parce que mu ngi commencé poser acte trahir charte bi ba mu demee dialogue bokk na ci aussi li nga xam ne gis nañ ko moom assemblée nationale la am ca mairie bu Dakar jege rapprochement bu ñuy bu ñu leen jiiñ seen diggante coalition Benno Bokk Yaakaar ba tax ñu dakkal fa seen ànd ak ñoom euh, bu fekkee sëy ba tas na ñu war a def bilan bi kan mooy dëgg-dëgg ki gañe euh, ci ànd boobee diggante yeewu askan wi ak plateforme bii di taxaw Sénégal. waaw taxawu Sénégal moo gañe xam nga bu fekkee li ngay wut da koy wutee ci goree ak yëpp <laughs> mais gañe gañe la ñoom ñoo gañe mais dañoo gañe ci goree beneen bi nag mooy waaye yeewi rek ñoo yëgul woon ne yeewi tas na loolu mooy wax ci te yeewi Sénégal nan la nan la amee nan la gañee ci àndam. no ak bi lan moo xam nga bi ngay ñëw di gañe mooy boo doonee wóorkat parce Dakar seen loxo la nekkoon. waa non xam nga non seen loxo la nekkoon mais bi mu fay nekk dañ laa wóolu woon defe maanaam yow comme ni Bart waxoon moom rek nga mën a en tout cas li Dias rek li Sonko waxoon moom nga mën a jox maire bi te du ko jaay Macky Sall lan lañ gis après jaay na ko ko ah. maire Dakar ba léegi mu ci loxol taxaw Sénégal. déedéet maanaam ci waayu Macky lañ nekk fi ne nii. foofu lañ lay waxee bu Sonko doon wax jaay jaay la doon wax kon kay loolu Sonko doon wax ne kii ci la misé woon xam nga mhm. dañoo teg suwaam teg bart mhm. mu ne ci kii laa misé kii rek nga mën a defar nangam ak nangam te muy gor du def nangam ak nangam mu teg ko mu goree di kon kay ñoom ñoo gañe beneen bi mooy man d'accorduma ci décision bi yeew yi def man gawuma ay dàq Bart boo ko da euh, kii xalifa boo ko dàqee sax da nga koo dimbale lan moo ci des yow mu def la ko war la ba pare ngay taxaw di ko dàq du ma la dàq. dama lay bàyyi looloon xaar ban taxawaay. non non taxawaay bi dama lay bàyyi ci biir du ma la dàq man ay dàqaate laa d'accord gis nga man ci démocratie dama jàpp ne nit ñi. dañuy mhm. war a am seen liberté di dem gis nga man au niveau vingt 24 saa su nekk décision yi ñuy jël ñetti décision yi mujj a jël yëpp ba ñeent wala ñett mhm. d'accorduma ci. mais bu non yu bari yoo xam ne bu ñu waroon a mars ñu daal ne non buñ dem parce que lii ah population bi nangam nangam comme tere nañ suñ téye nangam nangam ñenn ñu wax damay bokk ci ñi nga xam ne dañ naan dañ ko war a dox parce que ñun loi daf ñu may constitution bi daf ñu garantiral ne dañu am droit de manifester maanaam préfet bi ñu ko tere moo jaarut ci yoon parce que lim ñuy tegal mooy du dëgg parce que moom li ko ndeyu àtt ji wax mooy sañoo tere mars lu dul nga mën ko remarque mu mën a am trouble à l'ordre public ba pare doo am effectif bu doy bu ko mën a encadrer te yooyu yëpp buñ ko xoolee day teggiku day waroog dëgg li am parce que bu koy teree la nga fay gis mu jóor ko ci ay takk der su ko terewul woon xaaju xaajaat bi du ko fi jóor kon loolu wane na moo constitution constitution bi weddi na ko nee na waxoo dëgg ginnaaw dana ko waxoo dëgg man maa am dëgg man mi am dëgg man maa war a exercer sama dëgg donte dang may rey wala danga may yóbbu kaso yaa xam mais bu et quelques membres cent yi li ëpp cent yëpp daal di wax ne buñ dem man donte ne man la ak waa Pastef wala ñeneen ak ñeneen bu ñu xoolee ci wàllu poids ñoo ëpp mais suñ poids boobu sañuñu koo jël di ko teg ci seen kaw kon li ñuy bañee Macky Sall li ñu koy bañal naan elle est un anti démocrate kon ñun tamit dañuy nekk ay anti démocrate loolu mooy wax ji man moo tax dàq bi ñu dàq Xalifa dàq bi lan lay jëriñ mais bàyyi ko ci biir fu mu taxawee ñëw ci ndaje yeewi gone yu sénégalais yi ñoom ñu ngi fi <laughs> non non non kay boo xasee doon traître. Ah, ah, ah. gis nga dañ ne yaay ju mat yaay. guddi lay euh, bëccëg lay dox nit ñi di ko gis yaay ju matut yaay nag guddi lay wër xaji ko boobu loolu mooy dëgg tax xaji di ko ba déglu ma xalifa ba Barth mhm. ñëw ci ndajeem yeewi mhm. boo seetloo keroog ñaata ay ay gros bras la àndal ëpp nañ vingt moom la ñu ñëw imposé di taxaw gros bras yi wër ko teewul ñu taxawee moom la ñu xool wóowu yéen nit ñi kenn moomu leen. ba léegi jëlul kan. voilà alors euh, bu fekkee nag avance nañ tuuti euh, des ci mbirum Khalifa Sall mais bi leen boole ko ak euh, Karim Wade ci assemblée nationale ñu modifié waat article yi ba ñoom ñu mën a nekkaat ay électeurs mën a nekk candidat ci présidentielle yu 2024. Euh, yan sens nga leen gisal ci configuration politique bi ni mu demee jamono jële euh, bu fekkee Khalifa Sall ak Karim Wade si nañ ci langue gi yan sens nga leen gisal ngir ñu man a euh, briguer le suffrage des Sénégalais en 2024 Khalifa moom gisaluma ko benn sens te maanaam gàcce la ciy jële peut-être que dana am sens sax parce que mas a participer ci ay élection mais record bu faible par contre bu dee Karim Wade mooy tane mais mi ngi des tamit ci ban. taxaw lan moo lan moo tax laataa Karim Wade Khalifa Sall lan moo tax nga ne gisuloo ko ay sens. non xam nga jàpp ne war naa mën a war ta mën a am benn pourcentage bi ci. dooley nit ñi àndoon ak moom mooy ak bañ jàpp ne dafa bañoon lu mu war a bañ jàpp ne ko def koo teg lu dul yoon dama dem ba mu gi li ñuy wax syndrome de Stockholm dal Khalifa syndrome de Stockholm xam nga mooy lan en 1973 fële ca Suède Stockholm. daa am benn banque bu ñu fa doon braqué braqueur yi ci boppam bi ñëwee dañu tàmbalee créer situation de confiance entre ñoom ñu ñu jàppee ni ay otages dama dem ba ñuy jàppee ay otages suñu leen suñu laajee ndox buñ ñëwee jox leen wala dara di leen wan dañ leen a mujj bëgg wala dama dem ba mu gi sax am na ci jigéen ci ñoom sax dañoo mujj nopp braqueur yi mujj gi ñoom même otages yi sax àndandoo ak ak braqueur yi contre policiers yi. yi taxawoon pour di leen di leen di leen di leen di leen muccal pour bëgg leen a wàllu ñoom ci ñi leen defoon otage ñoom lañ mujj ki loolu moo dal Khalifa ci Macky Sall nit a ñëw giiñ la caisse d'avance mhm. tas la yàq say projet jël jéen Farba Sarr mu teg euh, yeneen affaire parce que ñëpp xamoon nañ maket bi nga xam ne moom la Khalifa defoon ak yooyu malgré lim la toroxal yépp après mu gi yow Macky Sall la ngay gën a préféré que Ousmane Sonko mi nga xam ne moo ñëwoon mooy sa sauveur. xaar nan moo am ba tax nga ne kii di Khalifa Sall Macky Sall la gën a préféré jamono ji que Ousmane Sonko. waaw mais Macky Sall nga dialogueel moom nga neexool fi ñu toll nii. yéen ñaar seen ginnaaw ba nag moom nekkul moom ak Macky Sall rek dañ fa woon ñu bari non xam nga su may wax mooy gis nga ñeneen ñëpp ay sikkim lañ gestoo leen ci yóbbaale dialogue bi biñ koy def diggante Khalifa Sall la ak Karim ñeneen ñëpp ay kii lañ ci ay y' a y' a plusieurs sujets qui ont été débattus waaw mais yu baaxoon ñu xëy réew mi tàkk. ay mag yi jëm yu fa taxaw dialogue ba pare ñu xëy réew mi tàkk le 31 le premier réew mi tàkk ñooñu ay nitu jàmm lañ wala nangam kon ñooñu ay figurant lañ fa rek la doon am mooy wax ci mais en tout cas. li ñuy wax ne dialogue bi. Euh, euh, même si bu fekkente ne dialogue bi mu jeexee bi ñu condamné Ousmane l' affaire Adji amoon ay manifestations yu amoon je pense foofu ngay def allusion euh, mais. dialogue bi ko man bëri na ay sujet ko fa wutee politique ban lañ ci andi kon buñ wax ma ci benn waaw non damaa bëgg nga andil ma ci en de politique damaa bëgg nga andil ma lenn lu ñu jël loo xam ne dialogue bi tax na mu amélioré wu non peut-être am na ay décision yu fa jël ci lu ñu waxtaanee war ci teew mënoo koo xam euh, waxtaanee nañ wàllu économie. économie est ce que yeneen i anam waaw non xaaral tuuti est ce que économie bi dafa dox wala daa ma ne ndax secteur yu bari transport bi ndax dafa jag wala daa gën a bon ba fi mu toll nii. xam nga ba fi ñu toll ni solution amul. non non xam nga loolu buñ ci yegg xam nga journaliste nga faaw nga laaj ma xaw ma tardel mais xam nga man ni may bëggee mbir bi non pas tardel parce que li ma bëgg non dañuy waxtaan dañ koy laal mais li ma la bu dee dëgg nangul ma rek affaire Pape Ngagne Ndiaye yi nga def ma maanaam xaw volé ma la vedette voilà yooyu bàyyi leen ko fekk am dëggam jox leen ko dëggam rek xam nga non si non non xam nga gis nga façon boobu sens bi Pape Ngagne di je le respecte ko respecté bu baax baax mais ni muy defee débat ànduma ci nit ki bu amee dëggam jox ko dëggam après on avance man na genre Mamar Diong yooyu noonu ñuy defee débat noonu laa bëgg koy defee débat bàyyil ala Pape Ngagne Ndiaye fële amul benn sens. xam nga mais bon. Euh, voilà la la ñu avancé rek comme tudd nga ko il faut que foofu foofu laay laay laay waxee ci dialogue bi nga daal dem taxaw tey Ousmane Sonko mi nekkoon sa sauveur xam nga dama naan Ousmane Sonko xarim Karim Wade ak Khalifa ñoo ko sobee parce que ñoo ko wan fi muy jaar maanaam niñ leen def ci la xam ne Macky Sall mii du ko ñuy kàbb ba mu taxaw dëggal boppam mais par contre xalifa ak Karim tamit Ousmane Sonko moo leen sauvé parce que Ousmane Sonko moo ñëw yem Macky Sall foo xam ne tey ba nekk adversaire de taayam moom mu xam ne faaw bu bàyyi leen pour mën a concentré wu ci kee kon indirectement mën nañu ne Ousmane sonk moo leen dimbale ci wet donte mën ñoo wax ak loolu yow léegi Ousmane Sonko moom nga xam ne tey moo la sauvé moo tax waxatuñ say wax moo tax ñu indiwaat la ci biir yow mooy sa doole moom xamatul woon dooleem fa mu nekk moo tax même Khalifa sayta saytaan daf ko jekku ba fi mu toll nii naa bokk rek la mujj di wax gis nga fan yi li ñuy génne war naan euh, Karim Wade bu ñëwee fii tamit dafa war a fay xam nga ñu ngi commencé liggéey voilà doole Karim moo koy natt mooy tane parce que mais nag à condition que que système yi may gis ay Nafi Diallo di ko def di jéem a giita gaas ak waa Pastef ak ak di jéem a jaay dangaam mel ni wu bëy da koy bàyyi noo si xool dañuy waxante dëgg gis nga xam nga PDS ñoom bi leen Macky Sall ne nangam li Karim teeloon a wax mooy dafa ñëw ne moom révision de procès la bëgg dañ ko tooñ te sénégal yëpp xam nañ dañ ko tooñ man xam naa ne dañ ko tooñ parce que loolu noonu duma ci du ci waye waye maanaam duma ci li ñuy wax duma ma ci tubay ju ndaw caaya laa ci lépp laa xam dañ leen a tooñ ba toññar bi leen kon bu Macky Sall ñooy bëgg a defaraat ko moom moo war a lijjanti pour di ko defaraat mais nag bu ko Macky di defaraat ñoom ñuy taxaw tey ensemble di ko di ko xalamal Macky Sall di dal ci kaw opposition bi askan wi dañ leen di jéppi moo tax bu ma doon ñoom posture bu may yore nag ba fi mu ne nii parce que sax jàpp naa ne posture bi ñu yore xam nga xalifa dafa kii ba pare mel ni luy raak ak waa Pastef ak askan wi moo tax Macky Sall ne kii posture bi Karim Wade yor fi mu toll ne tekk génn ci coow li boo xoolee moo tax ñu commencé di alimenté waat naan waaw su affaire yi ñëwee day fay wala day nanga parce que dañoo jàpp ne Karim daf leen a war a loyal parce que loolu bu ñu ko defee yow askan wi ngay dem dagaan bagaatu askan bu la askan wi jéppee même bu dee après jox nañ la say droit mais doo falu day gën a ci yow d'accord mu ngoog voilà euh, kon man Sonko euh, kii nu mu tëddee Karim Wade jàpp naa ne élection yi gañe ko moom gëw ma mu def ko mais dana ci am. ex score moo ci tane xalifa moo ci tane xalifa. d' accord euh, alors sànq da ko da nga ko tudd donc faaw ñu ñu def ci précision muy suñu grand Pape Ngagne Ndiaye di kilifa. ci liggéey bu nu mel di koo xamante ni tamit ku ñu naw la jox ko respect comme ni nga ko waxee xëy na nag amaana li nga wax am nga ci plein droit Euh, na muy defee man ngaa bañ a bokk ak moom gis-gis man ngaa bañ àndee ni amaana bu doon yow doon defee ni mais kenn ku si nekk. ak non non non kii na non extrême la depuis diine jama man. Ah, loolu quoi non Pape dama ko déedéet Pape Ngagne man dama ko dama ko boo gisee ma lay wax mooy moom boo ñëwee émission faaw mu secoué la kii la lim moom moom du naaw ah, bu ko deful non non non moom laa doxalin bi laa laa rafetlu rek ni mu koy defee pour man damaa jàpp boo invité APR moom APR ak PDS ak keneen la yemale ni muy ah. def ak yow da lay gësam loolu bokkul nga koy defal APR di ko xañal kee loolu moo di naaw feeq attention waxee ma foofu mais man li ma li mooy nit ki bu ñëwoon tey que mu doon benn nit bu amee dëggam bàyyeekook dëggam daal di taxaw tefaat damaa wax ne ni ñoom mamar di defee moom laa moom a gën a convient du loolu lañ koy waxee moom laa gën a taamu que moom ni muy defee mais du naaw feeq nag daf koy teg ci yoon waaw parce que beralu ko kenn maanaam ni mu koy defee bu dee euh, bu dee kaa voilà pour challenger voilà pour challenger la voilà foofu laay waxee mais parfois moo tax ma daan la wax ni mais Pape Ngagne man wax dëgg yàlla dama ko naaw wax dëgg yàlla am nag mm, mm, mm, d'accord ah, ah. Euh, jërëjëf mu ah. nekkoon benn précision rek pour ñu jéem a évoluer ndax temps ngi dem euh, bu ñu wax wax yëpp turu Ousmane Sonko dafay ñëwaat moom jamono jële mu nekk ci prison ba tey xëy nga a gis nga ko ci journal bi l'observateur nee na génne nañ ko ci liste électorale waaw léegi xam nga foofu ban jàngat nga fay am mooy procureur dafa taxawoon ne contumace bi jogewu fa ba nëgëne Ismaïla Madior Fall taxaw wax ko ñu ñëpp xam ne uh, loolu Ismaïla Madior Fall wax du dëgg kon tey il est éligible ba tey ñu daal di xëy ne dañ koy génnee ci biir yow génnee koo xam ne yow uh, contumace nee na ba tey moo tax ñu koy génne te pourtant Euh, moom ci boppam voilà loolu la bind moom ñëw na s'il se constitue lañ wax te pourtant yaa ngi gis Madior Fall daal si se constitue lui-même de prisonnier du noonu defee wuñ ko noonu boo demee ci article trois cent quarante et un s'il se constitue la tudul sax prisonnier yow yaa ngi ko fekk jàpp ko te moom bind na ci boppam ne àndul ci àtte bi kon loolu dafa dafa leer gis nga suñ borom moo suturaal Ousmane Sonko ba mënoo ko jaar ci yoon ba génnee ko ñàkk koo jaar ci yoon nag pour génne ko nag ci askanu Sénégal lay des ñu ne la nag yoon da nga koy doxal yoon par force parce que ñun ñëpp ndeyu àtte ji moo ñu tiim état de droit lañ nekk dañu war a defar droit mhm. waruñu xañ Ousmane Sonko ay droit am sénégalais yëpp taxaw di ko fekkee loolu kenn du ko nangu moo tax man taxawaayu ku mel ni Bougane gis nga chaque fois day yay politiciens yu bari xam nga ñu baree bari dañ ko comprendre Bougane Gueye mhm. gis nga biñ fi defee ci élection locale yi yeewi maanaam ñu jaxasoo mhm. ba mu teg doon wax problème mu couleur donte ànduma ci ci problème mu couleur war woon a taxaw naan problème mu couleur wala nangam mais moom dekkate affaire bi mu doon kii moom euh, xalifa la woon te après leeral na ko mais après lan lañ gis mu def dafa dem campagne yi malgré boolewuñ ko ci mbir yi amul woon Dakar mais dafa mujjoon campagne pour pour ñoom loolu mooy esprit homme d'état parce que li ngay xool mooy sa intérêt rek même bu ci dañoon te nga gis ne intérêt général mooy tey Macky Sall néew doole parce que loolu mooy dëgg dafa dem jëlee avant loolu commençant par foofu sax ci 2019 ngay njëkk a wax biñ ko njëkkee baaree parrainage ni ñëpp xam nañ ne Bougane amul problème mu parrainage wax dëgg yàlla parce que yaakaar naa ne niveau technologie nag gën koo maîtriser Bougane lim ci def wax dëgg yàlla am ci ay jooni jooni ci ay d'accord ak société yoo xam ne nii danga naan sax xam-xamam ci lañ màcc ñi nga xam ne ñi ngi nekk ay emploi di liggéey dalay wóor na ñooñu dañoo kale ci wàllu technologie kon problème mu parrainage waru nekk seen problème mais nga boo demee nga dem dugal dara ñu ne la ñii dañoo dangaa am ay doublon wala nangam naam ci ku mel ni Bougane mais loolu da nga xam ne du dëgg mais ànd ak loolu dafa dem jàppale ji Idriss Seck bi mu koy jàppale nekkul topp ci ginnaawam di yappar yappar ne ko da jaar ni ma jaar dem jël arsenal bi mu ñëwaatee delluwaat ci tàggoog Idi Idi dégg nga ko la mu wax mais bi ñu ñëwaatee ci législative yële weesu pourtant gëm sa bopp dañ ko recalé mu teg mais dafa dem campagne pour l'intercoalition pour man gis nga dafa àdduna dafay yegg foo xam ne nit ki doo xool sax intérêt rek da ngay xool li nga xam ne mooy intere Sénégal te intere Sénégal tey benn problème la Sénégal am Macky Sall la tudd li ci des yëpp ay problème la moom mooy principal problème mu Sénégal. moo jël alalu Sénégal di ko pasar pasaree di ko yàqate moo jël suñu budget di gën a ndóolal askan wi di ko yokkee budget bi te bu ko yokkee budget bi ba noppi def ko ci lu amul benn solo loo xam ne amalul nit ñi njariñ daanaka ci la koy mujj di def. tey loo xam ñu ngi bëgg a génn ci mbiri Ousmane Sonko de. ah ñu ngi bëgg a génn ci mbiri Ousmane Sonko. waaw non mooy xam nga foofu laay waxee maanaam rajo ci list bi foofu laay waxee xam nga yàgg nañoo rajo ay nit ci ay liste. wala ñu di leen bloqué provenance ci lu tegewu fenn nit ñi di bàyyi mais li ko rajee ci liste bi nii mais mais mais amul amul loolu du dëgg du yoon sénégalais yi ñoo ko warul nangu loolu wax naa ko ci la départ te def nañ ko ci lu dul yoon xam nga koo jàpp di ko persécuté saa su nekk yaa ngi jàpp nga ne sax loolu nekk na euh, xibaar bu wér parce que bu ñu gisee li nga xam ne moom la borom xam-xam yu bëri yu seen euh, xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon li ñu wax mooy bu dee mbirum Mame Mbaye Niang définitive nekkagul une condamnation bu définitive mm-hmm. euh, su dee mbirum Sweet nee nañ bañ ko tegee loxo rek la daan daal di naax saay rawatina sax moom mu def acte de non acquiescement mhm. loolu aussi dafay naax saayal daan bi faaw ñu euh, attewaat ko bu dee li nga xam ne moo ko yóbbu kaso nii en instruction la nekk euh, lan moo war mën a tax ba kii di Ousmane Sonko ñu koy génnee ci fichier non dara mais problème bi mooy dañuy nat rek nit ñi la ñuy natt fan lañ toll est ce que su ma defee li dinañ nàngam dañuy testé xibaar bi nekkagul lu non nekkagul lu dëgg nekk mooy comme li ñu defoon keroog daal ne euh, procureur bi dafa demandé euh, ñu kii Juan Branco nu mu tudd euh, mandat d'arrêt international daf ko requérir. Euh, requérir requérir ah, mandat d'arrêt lañ woon dañu woon mandat d'arrêt la international ba mu yàgg ñu daal di xam ne Juan jaar na fa la ñu ne ne daf ko requérir procureur la juge d'instruction mën na cee bañ a teg xam nga loolu si ballon de sonde bi la woon mais bu leen ko Mauritanie jàppalee ba indil leen ko la ma la Madior Fall taxaw. ne waaw mandat dara baa ngi nii dañ ko defoon mandat dara kon bu ñëwee arrêté nañ ko nangam naam kon da nga doon wax lan nga ci jàpp mooy bu fekkoon dañoo essayé dañuy wëlbati di ko giñ procureur ba jàpp ko it daal am na mooy lii ñu def nii dëgg li ñu def mooy li ñu defaat ci dissolution Pastef amagul woon décret Macky Sall de l'intérieur moo def benn communiqué il a fallu que Macky Sall doog a ñëw def décret bi ñu doog koo jël doog koo jébbal waa Pastef waa Pastef fu naan ko attaqué man yi ñuy def ni yëpp ay yëfi picc la te nag ñi ngi topp sénégalais yi ba ñu sës te du ma topp diw fa ngeen jëm moo soriwul Ousmane Sonko bu ñu amee moom problème décret de ba léegi gisaguñu ko de gis nañ communiqué bi moom laay wax xam nga sénégalais yi sénégalais yi quand même Macky Sall liñ ko lebal fayul naar ba xorom sa Macky Sall mooy koo xam ne tey bokk ci njaboot yi nga xam ne du ñu am woomle woon loolu maanaam ñi gënoon dool ci Sénégal mën nañu ne ak ndawam ci ñooñu la bokk comme man ak yooyu maanaam ci ñun ñu yamamaay yi ci la jóge Sénégal jàngal ko fayal ko jàngam mu yegg université ba ñëw ñu jox ko post yi gën a kawe mu ñëw ne état de droit lay restaurer Sénégal ñu jox ko mu ñëw toroxal état de droit Sénégal Macky Sall lim ñu teg ñun waa Sénégal ci moom la ñu xamee boddi compté ci biir xeet sëriñ si ñuy wax ñu naan teguñ leen fenn wala nangam nangam ci Macky Sall la tàmbale parce que moo leen njëkk ay simple citoyen te ñuy ay citoyen nag mais citoyen lañ a part entière parce que yow ay nit yu jiitee ay mbooloo nit ñi weg leen wala yu demee noonu nga leen di wan daal ne c'est des citoyens comme comme tout le monde nangam nangam ay oto yoo xam ne nit ñi leen ko joxoon ngay dem di ko nangu ci xalif général Baye Fall def nañ ko ko jël seen ay passeport diplomatique tey ñuy dem a dem ba tey mu bàyyi looloom nga xam ne ministre de l'intérieur boobu nga xam ne mi ngi tey taxaw tey le fait que taalibe bi mu doon di jël di dóore taalibe bi mu doon dem bay tuumaal waa Pastef di leen door ci entre di leen opposé euh, yoonu murit wala yi demee noonu am ci ñenn ci sëriñ si nag dugg ci sa boobu ku mel ni sëñ bas Bass Abdou Khadre tàbbi ci sa boobu te pourtant moom waroon naa gën a xam surtout bu ñuy wax communication dafa am verbal ak non verbal war nga mën a xam le jëli lees wasu waxul parce que bu Antoine Diome mënee taxaw naan ñiy taal cocktail molotov yi. café Touba dañ ko piégé mu daanu. non dañ ko piégé mu daanu ci piège. te loolu mooy wax ji. xam nga tey koo xam ne euh, amuñ woon benn respect yi yéen xam nga euh, koo xam ne tey nañ xool entre Macky Sall ak yoonu Mouride sëñ Mountakha mi nekk na fi vice xalif ñëw di julli si ñu téye ko ci jumaa ji loolu man c'est des faits yoo xam ne kenn du ko laam-laame téye ko ci jumaa ji barab bu sell ba ñu doon wax ci Ousmane Sonko naan mu dugg fi nangam Macky Sall dugg na faa ki daal la ba Mor Ngom di ko wax mu di ko gëdd. ak yu demee noonu pour man bu amee kenn koo xam ñaata nit ñooy taxaw fii wax ci sëriñ si lu dul noonu kenn du leen faale wax rek wala euh, kii leen mooy te ku wax Macky Sall lu dul naka ñu tëj la ci kaso bi kon dafa mel ni ñoom seen nguur li ñenn ñi nekkee ñoo leen ci bàyyi problème bi nag dem ba am tey ñu bëgg a jël gone yi di leen def ñu màkk ñàkk taalibe wala ju nangam te pourtant gone yi ñoom rek lañ am. ñoom dong lañ respecté. Euh, waxtu bi moo ñu moo ñu doon may ñu gën a gën a mën a yaatal loolee Ousmane Sonko de la faim bi yan kàddu nga ci man a yëgati ndax fi mu toll nii lott na lool ca ca lalu hôpital. waaw di ko ñaan mu bàyyi ko parce que nit ku bàyyi lekk ak naan moom suñu yaram wi lekk ak naan a koy dundal te ñii la yóbbu fële liñ bëgg mooy nga laati kaaf bu leen ko may man bu ma sañoon mu lekk naan ña fa nekk lekk naan le moment bu nii xam nga dañu naan euh, Ousmane Sonko askan wi du ko bare maanaam dafa fekk moment biñ koy yóbbu. ak après yi ñu teg. moom euh, ni mu waxee bàyyi ko de bu ñu liiree lii. Euh, non man euh, man damaa maître ba bind démb ba mu gisee moom. non man sàkku ci yeneen détenu yi ko doon amal ñu dakkal ko. ñu dakkal waaye moom moom laay wax. moom lañ bëgg non moom bu bëggee ñeneen ñi bàyyi. na bàyyi quand même te lekk naan mm, xiifal du ma ko digal kenn donte nag du ma ko ŋàññi kenn nag. parce que droit wu nit ki la suñ ko bopp wee sañ na koo def parce que loolu dong lañ fi dis comme réew mi dafa bari ay kilifa yuy seetaan. jëluñu seen responsabilité bañ waree atte saa yu Macky Sall sonnee képp la ñuy woote jàmm su Macky Sall jekkoo ñu bàyyiwaat ko ci mbir mi comme loolu moo fi am nit ki amatul beneen alternative bu dul loolu mais askan wi mu ne woon mooy ndeyam ak mooy baayam le moment venu askan wi dana jóg te yàggatut parce que man su may jàngat Sénégal <laughs> du ma ko xool ci tey rek Ousmane Sonko maanaam moom la Sénégal la am Sénégal moom la ñu am lii ñu koy topp yëpp askan wu ko jox bopp moo tax parce que bu tekkiwul woon dara tey du doon menace ci Macky Sall ba mu koy topp kon askan woowu nga xam ne tey moo moo ñoo ko dar ànd ak moom mhm. na gën a lekk gën a naan gën a wér ba pare di def ay kiyam di wax ak ñoom par des messages ak yu demee noonu le moment venu dañ ko teggil lii yëpp te lépp lu luñ ko tegaat ci waa ci jàllale ko ci lu dul yoon comme tey lii ñu war a def tey ba ñu xam ne tey xam nga Ousmane ko tey comme la mën nañ koo fal ci élection mu jógee prison ñëw jiite Sénégal mais fekk tey Macky Sall yeggut foo xam ne. ba bu ñu doon question boobu laa bëgg a dugal jàpp nga ba léegi mu ngi wéy di am chance ah. nekk candidat 2024. ah bañ a kaa ba nëgë ni il est ci wet yu nekk bu su waroon élection yi mën a wu kon gisuma lool te waxuma la Ousmane sonk waaye moom képp la yàlla may loo xam ne tey ci mbooloo ci Sénégal tey moom su ne leen dem leen fii wala def leen ñu def ko. loolu la yàlla dogal te pourtant du yonent xaj na du wàlliyu xaj na leen parce que man nag man baat wàlliyu dafa am lu bari lu ma koy joxe man nitu yàlla moom nitu yàlla laa koy mën yow mi sax jàpp naa nitu yàlla hmm. <laughs> loolu moo tax ah si loolu de Fallou du ma ko ah. nangul mais ah. ak ak moom euh, euh, ñu ñu ñu wax ci mbiru Juan Branco rek tëjee ko jotaay bi ndax waa ngi avancé yow Juan Branco yaa ngi koy tudd léegi say wax euh, mandat d'arrêt international ñëw Sénégal dugg yëgati ay kàddum ci capital bi nag duggaat ci biir capital bi réer fi ay fan génnaat Sénégal ba Mauritanie ñu def ko jàpp andil ñu ko. xam nga ban jàngat man dama koy sant gërëm ndax wan nañu ba fan la suñu njiit yi waaye de loolu rek mooy wax ji. est loolu. ñaata nit jotul ñu am ci kersa ak. non waaw ah, bañ a am kersa ak yaraanga lool kay man kay gàccaak may rey fi ma toll saa su nekk gàccaak may rey gàcce dong laa ci am nit ñi bu ñu ñëwee demande de liberté provisoire Cheikh Bara Ndiaye. juge bi may ko ko procureur opposé wu gis naa benn lettre am bu mu benn waa këram bu mu wax ne lépp fekk na ko fa defee wu màggal Tuubaa dina màggali yóbbu tànk mbaa mu ñu yóbboo ko boppam jiitu benn la ci kooku defoon na demande liberté provisoire ñu ne ay kilifaa ngi ñaan Macky Sall kilifay Cheikh Bara Ndiaye kilifay diine. dégg ma bu baax li nga wax de si Cheikh Bara Ndiaye. lu mu dénki mbokkam ne uh-huh. boobu ba léegi ñu ngi ko giiñ loo xam ne du dëgg ba bu mujj bi ñu jëli téléphone am wax loo téléphone yi téléphone yi la mu génne mooy daa set procureur sukkandiku euh, juge d'instruction sukkandiku woon ci loolu may ko bàyyi néggandiko mu waroon a màggali procureur opposé wu ci nee nañu ay kilifaam a ngi ñaan nag ñaanuñu moom nañ xam ne maanaam seen njaboot la ku fa des màggal Tuubaa moom dana ko defe Tuubaa soit mu dem ak tànkam màggali wala bopp bi jiitu lii leer na. maanaam yóbbu néew nangam. léegi nag yow tey bu ñu nee la Macky euh, ñu ne kan moo fonkul kilifa diine yi entre Macky ak Sonko wala nangam nangam pourtant waa kër Juan Branco ay kilifaam Espagne wala France dañoo wax rek dugal nañ ko prison kenn watu ko dugal nañ ko génnewaat ko ci lu matu soixante-douze heures kon dayo bi waa France am maanaam tolluwaay boobu sëñ Mountakha amu ko. benn keneen amu ko maanaam loolu la ñuy lañ ñuy wan daal ci Macky Sall. te nee nañ Macky Sall mais est-ce que noonu la demee. tamit wax ji bu ñu xam nga buñ nee ma sëñ bi mi ngi ciy dox sëñ Abdou Samad tang ciy dox keneen ak keneen tang fiy dox ma gis benn ñu ne ambassade eh, consulat bu Espagne wala nangam Juan Branco daal en tout cas daal waa France ñoo yëngal ak waa ñële ñu may leen Franck Juan Branco te li Ousmane Sonko wax la Juan Branco wax. ñu téye Ousmane sonk bàyyi kële Baara Ndiaye moom waxut loolu waxut lu toll noonu te ñu ngi ko téye te ay kilifay Baara Ndiaye nee nañu ñoom ñi ngi ñaan Macky Sall faale kon kay léegi te man kilifa Baara Ndiaye damay koy commencé ca fag ca gën a kawe sañ Mountakha la ba ci sañ sañ sañ sëñ Moustapha sëñ Sidi Moukhtar ak ñooñu ñi ñaan Macky Sall la mayu leen ñu doon ay tubaab yu xonq curu kon loolu wane na nakan suñu sëriñ yi ne woon ay citoyen lañ simple citoyen lañ dugg si Juan Branco ci moom ma ne dugg fi génnaat ñu ko léegi loolu li muy wane mooy doole moom ci Macky Sall suñ kilifa yi amuñ ko ñàkk am mooy waa bitim réew loolu rek laay fàtt dama koy fàttali nit ñi rek reew ma de ñàkkum ak taalibi mais damay fàttali ne maanaam li ngeen ñuy wax naan comme sëñ Bas li mu wax ne sëñ Muntaxa jàmm ji Sénégal man nag jamono bii ñu toll bu fekkee Sénégal am na jàmm moom ah jaamuñu ci giñ jagañ na de wax dëgg yàlla. léegi foofu jàpp nga ne daal Juan Branco yow ci sa wax. ñu tënk ko non dama ne Juan Branco. xam nga Juan Branco dafa doon exemple patent boo xam ne la Idriss Seck waxoon ne Macky réew mi dégluwu ci suñu kilifa diine yi xam nga Idriss Seck ko waxoon yeneen la ciy déglu. la mais li ma bëgg rek ñu ñu tëjee ko waxtaan yoon mooy Juan Branco mi dugg ci sunum réew. Ah. fekk ñu ko doon wër. wala fekk. xam nga dalal nga xam nga waxoon naa la mënuñu koo gis lu ma la waxoon lan laa la waxoon ne la su ñëw rom palais de la république duñ ko jàpp xam nga man waxoon naa ko ñëpp di ko dégg loolu mooy li ma gëmoon su du woon Mauritanie yi jàpp di jaay jonge gu forox jàpp ko andil ñu <laughs> ko woon téye man waxaat naa fii ne Juan Branco pomme bu tàng la leex ba ko njëkkee du ko mujjee te bu yeggee ci put gi day tàng soit mu wàcc ci biir bi xar biir bi wala nga xaat ko mu génn nga xaat ko nag moo fi gën a nekk jàpp delloo doo ngeen man ngeen jàpp delloo li ma lay wax ni xoolal kañ laa ko wax di bële passé laa ko wax la lundi li ma wax am bëgguma woon nag li ma wax di am bu ma sañoon Macky Sall yay ma xam mi mel ne sama baay di def lu baaxut maa ko lii boo ci boo boo defee lii di ci am bés fiyaruma ci sama baay am ci man ma am dëgg ci sama kaw baay mais loolu la yàlla dogal d' accord euh, ñu yëgatee fi waxtaan waaye bàyyi la rek ci ay simili mm-hmm. euh, nga joxe ay kàddu dénkaane eh, askan wi ak fi réew mi toll situation bi toll rawatina ñi ci prison yi di def grève de la faim eh, ñu bëri lottu ci ñu ngi ciy tudd Ousmane Sonko xëy na moom turam daf ci tollu fenn ci rek ay ku mel ni Hannibal Djim jamono ji li ñuy dégg ci moom mooy lottu na bu yegg ci lool Cheikh Bara Ndiaye boobu yaa ngi wax waaye aussi yeneen yi ndaw yu takkoo takku eh, ñu ngi ci. Euh, ana yan message nga leen di lancé ak yan message ngay lancé euh, euh, ak perspective yi nga xam ne ci la ñu nekk muy ci politique ak lu moom ñu ngi ci li leen man bu may ñaax kilifa yi Sénégal yi lay wax tout bord lii ndaw ñu jubtee te ñoo nekk ci yoon di ko dindi. Mhm. te ñu waroon cee leen cee fare dindi leen ko ndax ñooy seeni kilifa noppi ci di seetaan. bis bu ñu demee ba mbir mi sot soppi te soppi wuñ ko ñoom kilifa yi yaraanga dana am bis bu ñu demee ba soppi ko damay ragal la xewoon ca ndawi France yi xew mooy ñu régleel ko seen bopp ba pare na diine jaar na le mhm. politique jaar ne dootuñ leen ci boole man nag damaa gis ne Sénégal mhm. ni ñu mel ci sëriñ si mel nañ ko ba pare rawatina sëñ Bàmba mhm. tey nag moom ñëpp la demaloon géej nag mbooleem ku doon njabootam loo ci am yàlla na la lew muy warma jiñ lay jox ak àddiya lay jox taax yu bakkane yi ngay kiit yàlla na yokk waaye nag nañ xam ne njaboot gi seen njaboot la loolu yëpp bu ca nekkee nga sañ ko cee am man ma sañ la koo jox di la doole te xam ne yaa ma ëppale fuuf ànd ak loolu ma lay doole am na foo xam ne bu fa réew ma taxawee nga war a taxaw wax man nag ragal responsable wala daw responsable naan bu ma waxee ñu saagam wala bu ma waxee ñu nangam la yonent bee la gën fuuf te daan nañ ko saaga sëñ Touba la gën fuuf te bindal nañ ko safiun xaalu safiun sëñ Touba ko bind nee nañ damaa dofee dem ba di ko bind di ko kii bu gone yi ñëw ñu koy daw ne ab dof la ndax lan dafa doon résister loolu daal lay dénk kilifa yi ñu jël seen responsabilité taxaw ci li ñu war a taxaw te buñ taxawee li ñu war a taxaw nit ñëpp ñëwaat seeni wet delloo leen sag bi parce que da ngay gis su dara amee sax dañ leen yéene maanaam jëf ji ba bu dara amee sax ah sëñ bi kay moo wax bi mu waxee nangam nangam ak yooyu toppaat ci loolu nag buñ ko ñàkk buñ bëggee di des sag bi waaye sinon buñ bàyyee ba nit ñi régleel ko seen jafe-jafe maas ak wolof gi nga xam ne ay ceddu lañ tey kenn du leen gën a nekk murid waaye toppaate gi moom danañ ko xoolaat. <laughs> Ah, eh, jërëjëf mu nekkoon saa wolof ñoo woon mbégte dalalaat ko seq ñoom waxtaan bi di ko jox di dajee beneen semaine. Euh, incha allah bu ci yàlla àndee yéen yeneen jox dig daje rek euh, beneen yoon euh, yeneen émission yeneen invité ak yeneen ponk yu ñu war a di leen sant di leen gërëm ci topp bi jër ngeen jëf ba beneen yoon.